am mbégte parce que wane nañ ne patriotisme ku koy wër boo ñëwee ci biir di nga ko fekk ñii ñëpp ku mu neexoon nga dem toog di seetaan waaye képp ku bëgg sa réew lu mel nii bu amee di nga poser sa bopp question ne lan la wara def pour bok ci li nga xamantene xex la bu war ku yalla jox katan ci rew ci kaddu wala alal da ci wara duggal sa sa sa loxo ñom nak yalla may na len kan yalla def na nit ñi sopp mais yalla yit denk na len teranga bo xamante teranga bu lew la parce que ko ñak am ko kon sen teway fi ma gunge len comme niko ministre waxe nañ ñol sen bop parce que ça ça n'a rien à voir avec les activités sportives une famille restera toujours une famille Nous, sommes acteurs de la lutte nous sommes la de la santé de l'action sociale accompagner le président de la république pour protéger les sénégalais ay kilifa ñoo fi taxaw ci wàll wi ñu nekk mais ay kilifa lañ ci kon damay ñaan rek gri ngeen gën a góorgóorlu ni ko ministre waxee ci sensibilisation bi di gëm nag ne acte bi ngeen posé yàlla na doon liy jeexal coronavirus. amiin amiin amiin maa leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Gris Gris Bordeaux président wax dëgg yàlla parce que tamit jiite yombul. imaam ba ñuy jiital sax gënul xam-xam gënul ëppul xam-xam ñëpp dañ ko doyloo rek jiital ko te nag wax dëgg yàlla mbir mii ma bokk ma bokk ma bokk ko ak samay nawle samay jiite say nawle jiite say moromu say say adver ñoo xam ne ay adversaire ngeen yombul man kon mbégte bi mu ci am mooy wax dëgg yàlla bi ma jëlee sama téléphone woo ku ci nekk ñu gisee teew ñëpp ñëpp booy ñaaw Modou Lo Fatine rëg-rëg Yaxya suñu suñu mag wax dëgg yàlla yombul ba jëlee suma téléphone woo ku nekk waxtaanee ko ci néeg ba ñoŋal ko ba mu yegg si fii yombul woon waaye lii rek laa ci bëggoon ah pour tey ñun mbër on est des vrais social kenn daxuñu ko ci Sénégal bi coronavirus bii mbër yi gën a métti la parce que mbër mbër rek mooy dem ñaani pour jox pour jox ay nit waaye lii dafa nekk quelque chose boo xam ne dafa c'est symbolique lii dafa mënul ñàkk parce que dañu nekk Sénégal façon takkusaan bu ne bu ñu amee combat dëkk bi na tekk doo dégg dara kon boog lii ci askan wi la jëm am ci contentement si suñu ñaari ministres yi mm-hmm. seen teewaay bi ñu ñëwee sànq di jël ay parole ci kaw di waxtaan ci kaw ñu ne le ministre Diouf Sarr dafa nar a absenté ñu ñëpp suñu yaram yi dafa xaw a dee parce que parce que li tax <coughs> mooy dañ koy séen ci télé bi soo ko gisoon xam ni kilo yi wàcc na ndax sonn parce que nag xam nañ ko bien avant coronavirus bi di dugg senegal du nelaw guddi am yërmande ci moom lool en tant que période patriote gis ko ni mu sonnee. nga xamni ñun ñëpp ñoo dañoo wara japp ci xex bi andal nak suñu ministre du sport tay mu magal ñu tay bu ko neexon na ba nga le top waye dafa xamni lamba làmba ay tay ay mbeur ñoy indi mu ñew jëmmal teewaayam am lu mu def ci bés bi mbir mi combat te mbir mi combat la ta tamit mu ñew taxaw fi suñu papa Bécaye Mbaye dañ ko woyar def na asalaamaaleykum. ngeen xam ne tey làmb moo fi nekk façon sportive bu nekk ñëw na fi waaye tey li fi ñëw ci presse tey. ñu fi soow a ñëw. kon ça di dire tey dafay wane ni mbër yi waroon nañ war nañ gën a xamaat suñu bopp xam ñun lan la ñuy tekk ci dëkk bi xam ban impact lañ fi am ci pour bu bu bu yu mel ni amati amatee buñ ci xaar kenn xam ne làmb moo ci gañe encore une fois kontaan nañ trop. di ñaan yalla fever bi nga xamni bala la yalla nako fi yalla jëlé parce que sonon na aduna bi trop parce que tamit ñu dugg ci koor gi koor gi ngi ñëw waaw te gis xam xif xif du jamm kon bok yalla nako fi yalla jëlé ci barki Cheikhou Tidiane di kontaan ñep di gërëm ñep di and ak di kontaan trop ci sama mbokk mbeur yi nga xam wax deug yalla ak sama mak yaxal job yekini deux jours man ak mom ñi ngi and dugg ci dëkk bi pour rek li ñoom jërë ngeen jëf